dañu pas am député dañu pas am cent cent vingt élus. d'accord donc là c'est sûr bon pour en venir maintenant au cas Karim Wade. mais nañ bàyyi Karim bi ñu dem ci boobu. interpellé ci Ndem après ñu ñëwaat ci Karim bi. Ndem par rapport également à cette situation des 44 là pare ci ku jég politique bi jàpp ne war nañu bind président Macky pour revenir à ce que parrainage bi ñu xoolaat ko te ñëpp jàpp ne li muy indi moo di report des élections est-ce qu'on en à ce niveau. te ñoom euh, ah. turu turu leader am Aïssatou Mbodj mi ngi ci euh, ñi ko kii ndax yéen da di euh, maanaam def ci comme Ousmane Sonko que ni ça vous concerne pas wala vous endossez la responsabilité d'abord sur le principe mm-hmm. parmi ces 44 candidats personne n'est disponible pour que ñu reporter les élections présidentielles à pour le report dafa am antécédent bu ko jiitu avant bii di am bul fàttali dama lay fàttali juste ni la il y presque une semaine opposition bi defoon na recours ci Sénat bi vie de la veille ñu sentir ni pouvoir dafa bëgg a reporter élection yi ñu sama présidente mooy Aïda Mbodj Ousmane Sonko yónni avocat am ci moom mu woole les autres leaders ñëpp def désistement retire désistement pour que élection yi bañ ko reporter pour vous dire à quel point on tient à ce que le calendrier soit respecté les candidats ce qu'ils ont en commun les 44 candidats là mooy que ni ils ont été injustement éliminés du processus électoral cest que personne contre le parrainage nous sommes pour le parrainage moi je suis pour la rationalisation des candidats mais nous sommes pour un parrainage boo xam ne c'est équilibré c'est juste et c'est transparent su ma jël su ma kaa laay jël moi j'étais le coordonnateur national du parrainage de la présidente docteur Aïssatou Mbodj ànd sax liggéey mu nekk un parti politique implanté wu sur les 46 départements du Sénégal am des responsables partout def un congrès d'investiture def presque trois wala le tour du Sénégal ñu def ay parrainage au niveau des villages des communes des départements des région remonté ko au niveau national ñu déposer le maximum de parrain ba am stock presque lu mat cinquante mille parrains yoo xam ni réserve la donc amuñu woon difficulté pour def parrainage boobu <coughs> bu ñu ko yóbboo nit ñu éliminer mooy y'a vingt mille parrains yoo xam ni nekkuñu ci fichier bi noonu la ñu éliminer mm. et sur les vingt et un mille yi ñu jox bi ñu jëlee parce que du ñu nag attaque ñu jël on regarde les vingt et un mille ñu jéem a identifier est-ce qu'ils ont raison ou pas on s'est rendu compte que il mille huit cent soixante-douze yoo xam ni c'est des primo-votants c'est entre dix-neuf et vingt un ans et ñoom ñëpp ñu ngi ci fichier bi seen carte électeur mu am parmi eux au moins quatre conseils municipaux yu ñu détecté yu dëkk biir commune de Bambey donc ces seize mille là yu ñu buñ ñu ko delloo woon nous on passe le parrainage mën nañ nekk position boo xam ne dañu am ay doublon externe c'est tout à fait normal parce que tirage ko indi contre ñu loolu mais boo nee ñu Samba nekkul ci fichier bi Samba ne ci fichier bi dëkk tel commune dëkk tel quartier di voté tel bureau de vote loolu moo tax ñu def recours te recours boobu ñu def les autres candidats ci même dynamique bi lañ demee. dañu jàpp ni amul transparence ci processus de parrainage bi cest di que ñi yëpp ñi ñëpp li ñëpp yem mooy kenn xamul ci ban logiciel. la ñu paramétrer les parrainages ak ci ban fichier la ñu comparer. mais mais compte tenu de tous ces éléments donnés. Mhm. ñu demander à ce que ñu revoir le processus associé ci tous les acteurs. mais pour que ku ñu éliminer nga xam ni ay la yéwén dañu la éliminer mais de façon très démocratique. mais mais ni ko Georges waxee est-ce que le temps des contestation par rapport au parrainage est révolu bu fekkee ne tey jii. si ni ngeen ko sukkandikoo soo leen ko defee demandé ko loolu c'est implicitement demander le report à ce que ñu permettre leen également ngeen duggaat ci li nga xamante ne moom moo di langue bi. ñun demandé wuñu report même si le président veut reporter parce que à son niveau ak camp wuñu parce que quelle que soit la situation xam nga président Ousmane Sonko il en prison donc ci xel rek da nga naan bu report doon am mu la war a gën a arrangé mais ñu wax wax report élection yi parce que li mu mooy dynamique bi population bi nekk mooy un changement dafa war a am le 25 février et que que soient les combinaisons faites par la majorité présidentielle les candidats de l'opposition vont les candidats de l'opposition vont passer soit au premier tour soit au second tour donc newuñu ci dynamique report mais il faut que Sénégalais yi xam concrètement qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui est en train de se jouer le problème du fichier électoral dañ ko xeex des an tous les mardis on se réunissait et les jeudis on discutait du procès du fichier électoral mais au finish ce qui a été retenu par tous les acteurs duñ ko jël pouvoir mooy décider lu ko lu ko neex lu mu sentir mu def ko te mënoo ci dara wax rek nga mën mhm. donc li acteurs yi mën def nañ ko li nga xam ni moo war conseil constitutionnel nga xam ne mooy le garant parce que li ñu jàpp mooy conseil constitutionnel mooy euh, garant boo xam ne moo war a saytu lépp lu jëm ci élection yi mooy mhm. l' mhm. instance mu am ay irrégularités à son niveau amul réponse concrète yi mu ci mën a joxe peut-être leaders yi jàpp ni ils vont élire un président de la république boo xam ni moom la ñu fal pour mu diriger le Sénégal s'il y a des problèmes peut-être ñu soumettre ko ko. Hmm. d'accord donte soumission boobu ne justifie pas que dañu bëgg mu agir pour ñu reporter. Hmm. parce que l'opposition elle est prête pour ces élections parce que am nañu yàqin ak certitude que dañ koy problème mais Georges kon kan de l'opposition ils veulent pas mais suñu ne dañu déposer li ni mel ñu bari dañ jàpp implicitement ñoom veulent un report mais kon kan mooy ce débat là. Euh, mhm. lui demandant de revoir le processus. mais fu mu nekk nii le problème c'est quoi c'est que le temps ne le permet plus. revoir le processus ça ça, ça signifie quoi c'est-à-dire ñu ñu ñu ñu reprendraat le truc du parrainage wala ñu revoiraat ñu wutaat beneen logiciel pour reprendre le contrôle non. du parrainage. revoir bi mooy. Mhm. les gens ont déposé des recours. Oui. dans les mhm. ñu ngi ci délai yi ah. recours yi dañu ko war a traiter dans les 72 heures. Mhm. ñun bu ñu déposé bu ñu joxee dëgg mooy dañuy dem dañuy restituer suñu mille parrains bu boobaa ñu ni vous avez 48 heures pour compléter. mënul am incident ci élection yi. parce que recours yi non c'est réglé. c'est des doublons. attendez attendez si c'est tu peux les remplacer. doublon interne nga amul droit remplacer. parce que recours yi ñu def c'est dans les délais délais yi la cest mënul am incident sur le électoral. parce que suñu ñi def recours ñëpp bu ñu ko traité c'est prévu par la loi. s'il y a un ils ont 112 heures pour pour joxe seen verdict. bu bi génnee ñu jàpp ni ñoom recours bi nga def c'est valable nga ñëw tu régularises. li ñu ciy interpellé à ce niveau am na rôle bu am solo bu pouvoir exécutif du juge sur pouvoir judiciaire et que nous on n'a pas élu des juges ils ont leur pouvoir bu ñu war a exercer on a élu un président de la république muy clé de voûte des institutions donc situation boo xam ne am na mu impacté des candidats yoo xam ne ils ont investi dans ce pays ils ont eu des parcours politiques ils ont eu des partis ñu jàpp ne injustement la ñu bëgg écarter et que la loi le autorise que ñu nekk dans le jeu électoral c' est pourquoi ñu dugal recours yooyu. donc amul ci incident recours yi suñ ko traité normalement dans les 72 heures tout tous les candidats yi nga xam ni seen recours c' est ñu jox leen dëgg dañuy régulariser man nga régulariser ñëwaat ñu éliminer la. légalement comme man nga régulariser ñëw jàll. parce que li am solo mooy l' opposition a un seul projet benn amuñu ay divergence interne objectif bi ñu am c' de prendre le pouvoir en 2024 prendre apporter de benn projet yu bees yoo xam ne da mën a jël en compte les préoccupations des Sénégalais. Mm. les gens sont dans ça. donc ñëpp ci même dynamique bi lañ ne. dynamique boobu nag dafa am xeex. am na recours yu ñu dugal ci biir candidat yu ñu validé ba pare am na ci candidat yoo xam ne peut-être ñi ngi jéem a wut ay pexe pour galgal leen donc dafa laaj ñëpp taxaw. Mm. mais dafa au niveau national mm. international ñu xam ni. y a un processus au Sénégal boo xam ni buñ ko bàyyee injustement lay dem éliminer ay candidats. bàyyi ay candidats yu jàll yoo xam ne ñu ci ëpp moo leen di choisir. Hmm. parce que tey le président Ousmane Sonko rien ne justifie rien ne justifie que dossier am étudié wuñu ko woon en première instance parce que tous les dossiers ñu ngi woon ci biir dossier bi recours bi nga xam ne tey Amadou Ba def na ko Amadou Wuri Ba sur Bassirou Diomaye Diakhar Faye c'est important non non je, je comprends je, je sais pourquoi je dis ça en tant que sénégalais. tur bi ñu xam casier judiciaire am dañuy bañ. Euh, voilà non du problème problème parce que dañ. tur biñ biñ nekk euh, ci ci ci euh, état civil mooy xam nga fu may waxee. le fait que ma ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo tax man la Amadou Wuri Ba. c' est important pour un Sénégalais. Bassirou Diomaye Diakhar Faye lañ bind ci kayitam. très bien kii Amadou Ba lañ bind ci kayitam donc. ça ne change pas grand chose. man nga woo ma sama turu papa dérangé wu ma. c' une fierté pour moi. boo nee Karim Abdoulaye Wade sax c' une fierté pour lui mm-hmm. donc ça c' pas un problème. Ah, d' accord donc le fait de citer ça. Mm-hmm. du un problème majeur. bu donné mm-hmm. donc ci yenn question yi. ça ne se pose pas. sur ko li nga ko mën a reprocher quelqu'un nous par le code électoral. c'est le code électoral moo ñuy départir tous les candidats sur le processus électoral amul benn article ci code électoral bu ñu mën a sukkandiku tey pour invalider la candidature de Bassirou Diomaye Faye nii pour Cheikh Tidiane Dièye pour le cas de Karim de c'est réglé parce que déjà euh, gis ngeen donc la position de la France wane ni déchoir na nationalité il est né sénégalais et français parce que sa mère elle est française son père est sénégalais mais son père fut président de la République du pendant 12 ans mhm. ne serait-ce que par ça rek on ne doute pas de sa sénégalité mhm. mais pour protéger le pays c'est normal ñun il faut être exclusivement nationalité sénégalaise ça c'est pas un problème pour le cas de Cheikh Tidiane Dièye et de Bassirou Diomaye Faye Cheikh Tidiane Dièye dafa yor parti boppam mhm. respecte toute la législation donc fu ñu ko dissoudre kenn yëgu ko amut donc yi ñu koy toppee pour man appât la. Cheikh Tidiane Dièye les intéresse pas c' est Bassirou Diomaye qui les intéresse pour attaquer Bassirou il faut attaquer Cheikh Tidiane et bassir en même temps. pour donner bonne conscience que demain su ñu jël benn décision ñu ne ils étaient deux pourtant selon la loi x y. Mmh. mais selon la loi aussi amul benn possibilité bu pouvoir actuel am. pour invalider la candidature de Bassirou Diomaye Faye gisuma ko. Mhm. d' accord gisuma ko mais dafa am nga xam ne aussi euh, bëgg nañ bëgg nañ si ñëw muy processus bi yaa ngi koy wax sànq euh, le président de la Macky bu ñu ko bindee lettre ne ko euh, maanaam na moom mooy clé de voûte des institutions na na ci dugal loxoom ak yooyu yéen li ngeen bëgg mooy moom bu ci dugalee loxoom nan la ñuy def pour que ñu accepte seen recours est-ce que loolu du li ñuy bañ souvent nga xam ne waxtaan nañ ko ci plateau yi ba tàyyi que ni président day dugal loxoom ci justice sept sages yu toog war a décider ndax euh, Aïssatou Mbodj day bokk ci car élection yi wala déet ngeen bëgg président de la République Macky moom mu dugg ci. waaw xam nga président dafa mas a dugal loxoom ci justice bi ni muy doxee. Mhm. surtout décision yu ko intéressé. dañ fi dem élection législative député yi da nga mhm. bi moo doon les ténors de Yewwi muy Aïda Mbodj muy Ousmane Sonko bu ñu dem assemblée nationale lu mësul am ci histoire politique du monde. ñu def ko c' est le conseil constitutionnel ñoo moo ko def jël ay suppléants valider leen pour ñu dem élection. pour bëgg ñu boycotter ces élections pour ñoom ñu dem. ñu xam ko xam ni ce qui nous intéresse le Sénégal malgré toutes ces injustices la le peuple est avec nous on est allé aux élections et sorti de ces élections parce que li am solo mooy ñëpp war ko jàngat l'opposition majoritaire au Sénégal. depuis 2022 aux législatives malgré njuñ njaay yëpp yu ñu def l'opposition était majoritaire en termes de voix la l'intercoalition Yewwi Wallu avait plus de voix que Benno Bokk Yaakaar au niveau national. d'accord entre-temps et à l'époque naturellement c'est le président Macky Sall qui était leur candidat en mm-hmm. il était chef de la coalition Benno Bokk Yaakaar maintenant ce n'est plus le candidat. ils ne dirigent plus la coalition Benno Bokk Yaakaar et parmi eux il y a au moins trois candidats yoo xam ne y deux maires kenn ki chef lieu de région kii beneen ville bu am solo. Mhm. donc seen électorat dafa wàcc. ba pare ñu am candidat boo xam ne amul parcours politique amul benn su mhm. euh, euh, base électorale boo mën a sukkandiku. ancien ministre des finances kii mën na am lii. Mhm. et que l'opposition s'est renforcée davantage. en terme de leader et en terme de voix. dinañ ñëw opposition renforcement boobu <laughs> mooy lan mooy au soir du 25 février 2024. Mhm. un candidat de l'opposition gagne ces élections là et que mu bokk sur les rangs de la. mais daal mu wax conséquentiel que mu xool recours yi. Mhm. valider les candidats.